daleen ak jàmm Youssou nduur ak waa Ndourène ku ñu dogal tubay ngemb lang lay xaar bi le wax xawma ku koy weddi waaye du Pape juuf moom mi nga xamante ni def na ci seen biir 19 ans njiital génération consciente te nekkoon plein Youssou nduur ginnaaw ba mu jógee Prince Art ba léegi di label boo xamante ni rakk Youssou nduur di Ngoné Ndour moo ko moom ngir fas yéene ber yoonu boppam daal di engagé ci ab carrière internationale mu mel ni mbir moomee dafa déranger ki nga xamante ni moo di Youssou Madjiguène Ndour ak waa këram ba tax ñu koy def comme nañu doon def doomu Thione Ballago Seck bi di Wally Seck maanaam di ko koñe ba dootul génn ci seen télévision loole la koy firndeer mooy invitation bi nga xamante ni Pape Cheikh Diallo invité woon na ko kii di Pape Diouf ci émission yeewu leen te ñu mujjee sax pour signal bi en direct bi nga xamante ni pab Diouf ñëw na ba commencé émission bi moom Pape Diouf xam bi mu xam jikkooy waa Ndourène ak waa TFM taxoon sax mu li ne woon invitation bu Pape Cheikh Diallo bi waaye ginnaaw insistance su animateur bi di Pape Cheikh jàlloo Pape Diouf daal di mujjee finalement accepté invitation boobee ñëw li ci doy waar nag émission bi daw lu tolloog 15 minutes rek waa TFM daal di coupé signal bi ci noonu animateur yeewu leen bi Pape Cheikh Diallo daal di mer bu fut lu ne mu wax ko ñi nga xamante ni moo di technicien yi en réalité ndekete yoo du ca technicien ya ordre la boo xamante ni ñi di technicien yi jot nañ ko ca kaw Pape Cheikh Pape Diouf moo ko doon calmer bu ñu sukkandikoo ci suñu source coow li jip bari lool Pape Diouf moom daal di ramasser ay dëbësam daal di quitté ndànk studio bi daal di ñibbi ca këram li ci gën a doy waar nag te yéeme waa TFM au lieu ñu indi ay réglage ci mbir moomee dañ faa jaare rek coupé émission boobu di yeewu leen coïncidence la wala ak tayeef lu ci mën di am daal Pape Diouf depuis mu jóge Prince Art ngir ngir engagé wu ci ab carrière internationale waa Ndoureen ñi ngi koy def ay jëf yu sew ci suuf. salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal yéen laay waxal waa Sénégal dama bëgg ngeen ubbi seen bët te xam ne lii nag ëpp na ëpp na te xolal lu ëpp tuuru Papa Diouf a ñoo ko warul dem TFM di def en direct yi ak yeewu leen Pape Cheikh Diallo mosoo leen gis yeewu leen di daw ba ci yàgg ñu dagg réseau yi amul c'est seul Pape Diouf lañ ko def ndax lan affaire Kumba amul ndey Kumba am ndey Pape Diouf moo santiroon fi mu neewoon neewatoo fa bugg ko mu génn ngeen nan da koy néewal doole Pape Diouf kenn du ko néewal doole TFM yéen a ko ubbi ne télé réew mi ne télé àdduna la ku mu neex dem fa def sa émission Pape Diouf dafa bokk ci réew mi kenn du ko fi néewal doole parce que Seydina Mohamed da doon def TFM émission léegi-léegi waa dagg affaire yi naan ay eh, eh, eh. amul maa ngi nii di ñëw Sénégal lépp rek réglé wu barki yonent bi laa la wax Pape Diouf dafa bokk ci réew mi am yaay ak baay àdduna bëgg ko moo choisir ne bëggatul foofu génn fa jël yoonu boppam mais c'est quoi le problème